Daaru Khoudoss euh, Magor Kane euh, ak i naataangoom aussi yoo xam ne woon na leen fi euh, ku mel ni Baara Ndiaye maire bi mu fi ku mel ni aussi maire u maire u Pekes wala maire u Koul ak i yeneen i maire yoo xam ne yi tey dañu ñëw toog pour fekkee final du maire bi ñun ñu jógee Ndakaaru ci invitation am ñëw fi muy boy seet feetu sport waaye aussi danu toog entre camarades yu bokk APR pour mën a waxtaan seet Euh, nu nu gën a mën a yaatalee base su parti bi fii ci arrondissement bi euh, loolu mooy mooy sunuy tànk waxtaane aussi nu nuy fexe ba li nga xam ne président mu ngi koy def ci liggéey bu rafet euh, sunu parti aussi gën koo mën a yaatal ci arrondissement bi ndax fii ci arrondissement bi nag président aussi def na fi lu bari ndax booy xool arrondissement bi APR moo fi ëpp moo fi ëpp ay maire moo fi ëpp taxawaay waaye ba tey taxawaay nag da koy suuxat doo tëdd rek ne ma voilà maa fi raw continuer nag di ci liggéey di population yi nga xam ne ñoo ñoo la wóolu ñoom it ci la ñu ne ñun nag dañu jóg bàyyeekoo Ndakaaru pour gën leen a soutenir eh, ndax daf ciy baax aussi ci parti ñuy mën a am solidarité yu mel nii. ci euh, maanaam discours yi njiitu réew mi keroog 31 décembre coow li bëri na ci wàllu koppar koy doxal ak mandaam yooyu gis-gis nga waaw man li ma jàpp ci li président wax mooy wane na eh, ci anam yu leer eh, jéego yi nga xam ne Sénégal mu ngi koy am bi mu yegsee ci bopp nguur gi depuis 2012. Euh, wane na ci wàllu yoon yi wane na aussi ci wàllu jàppale ñi nga xam ne dañu néew doole wane na ci wàllu hôpitaux yi ci wàllu piste yi li nga xam ne lii vraiment mu ngi koy liggéey euh, pour Sénégal mën a avancer kooku vraiment euh, koo xam ne kii dëgg soxal na la mënoo koo weddi président mu ngi mu ngi liggéey li mu man waaye nag du président rek war a liggéey ñi ci des soog déedéet sénégalais bu ne boo xëyee da nga naan man war naa góorgóorlu ci la may yëngu war naa aussi fas jom ndax ku ci ne nag aussi nga mën a dugal sa loxo ci mbir mi ndax buy liggéey ñëpp toog it du sotti il ku nekk nag euh, aussi euh, farataal liggéey euh, ci njub kooku aussi am na am na ci solo lool lool lool. ci wàllu ay élection lu am solo la ndax ci la ñuy tànn njiit waaye li ma bëgg fàttali rek mooy président ci boppam sénégalais yi sept ans lañ ko faloon mu jël ci coobare boppam décision ne daf ko bëgg yóbbu cinq ans ndax xëy nag ci moom loolu mooy démocratie. waaw nee na dana jël kuréel bi nga xam ne mooy joxe ay conseil muy conseil constitutionnel jébbal ko loolu euh, ñoom it ñu wax ko ci fa mu war a jaar kooku nag li mu firnde mooy mën ngaa doon politicien ba noppi doon nitu kàddu man loolu laa gën a jàpp ci discours du président ne nitu kàddu la waxoon naa ko waxoon na leen ko ne leen teey leen toog leen bu jotee danaa leen wax la may def ba mu jotee kàddoom ak jëfam méngoo na kooku aussi dafa di jàngat bu am solo politiciens yi ku ci ne war ngaa jàng ci loolu. lan moo waral non ah coow nag moom mënta ñàkk ci démocratie kooku aussi dañ koy nangu euh, kuy def opposition waaw buñ la nee jant bi feeñ na nga koy gisit da nga naan feeñut kooku mooy mooy jeu démocratique euh, waaye euh, ni ko président continuer di wax nanu continuer rek ndax dëkk nag aussi mënta dëkk ci coowal politique day am moment boo xam ne ñëpp dañu ware a nag aussi ne tekk déglu ki nga xam ne moom la peuple bi jiital mu wax yoon bi mu war a jaar wax na ko dina ko jiit jox conseil constitutionnel ci anam yu gaaw bu ko defee conseil constitutionnel wax ko fi mu war a jaar ak li mu war a def ndax lépp it foog mu méngoog yoon voilà kooku am na ci solo waaye voilà. waaw waaye nag mooy li ma wax démocratie moom ku ci ne am nga sa xalaatu bopp euh, ni ma ko waxee euh, loolooy démocratie dañ koy nangul aussi ñi nga xam ne d'accord uñu waaye ñi nga xam ne moom bokkuñ ci benn parti di gis rek defe naa ne lii nga xam ne président wane ko wane na ko euh, indi chiffre ane ay mandarga yu leer loolu it def naa ne ñi dëkk ci dëkk bi ñu ngi koy gis encore une fois nu continuer ku ci ne fa nga ne di góorgóorlu ñu teg liggéey fa nga xam ne fa war a ne ndax liggéey ginnaaw jaamu yàlla moo topp ci li nga xam ne moom lañ sant doomu aadama kon nag euh, def naa ne ñun ñëpp bu nu góorgóorloo euh, gouvernement bi aussi continuer ci li muy def incha allah euh, sunu dëkk dana mën a avancer.